la fàtte gëy di ñaanal suñu baay moori nelaw na na ko yàlla dolli ay leer baay moori gëy làqu na suñu baay yow baay bu baax nga na la yàlla fay sa jëf suñu baay moori wéetal na waaye mbël gëy nelaw na aa ñu ngi ñaanal suñu baay El Hadj Mori nga xam ne weer wi su tero suñu xel yépp day nekk ci moom ndax septembre la set ci la génnoon àdduna ñuy ñaan yàlla yàlla yokk leeram suñu baay boo xam ne duñ ko fàtte mukk mën naa ne lu bari ci ay bandam ay kasatam ci lañ jàngee way yu baree bari kon duñ ko fàtte mukk mu nekkoon baay bu disponible baay bu laabiir baay bu yaatu yal na yàlla yokk leeram ma ñu lekk ak Seex Ahmad Tijaan ak i sëriñam